Ndiaye Al euh, lan ngay wax ci bisu sëñ Modou Moustapha bisu sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim ren di 19e édition ak yan seede nga nu mën a waxal ci Pastefu sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim nga xam ñëpp wuy si nañu. waaleykum salaam wa rahmatulah. Cheikh Talib ñu ngi lay nuyu di la seer bu baax xam euh, dana yomb ci ñun ñu am kàddu yi ku may nañ ko lool xam nañ ko bu baax a baax ndax euh, sama rakk la. mën naa ni maa ko maa ko yar waaw lépp ci sama kam la ko defee ma xam ci moom nag dëpp mu nekk tuut ba tey muy pësteef ak bëgg baax ak yéene ju ak ko ak ko fit mu dana ko yi tóndoo mu ci Moustapha ku yàgg bëgg lu baax rek Mbacke Mbaye gis na ne Alkarim ñu bari buñ xewlee bis dañuy dégg defar ay lettre soutien dugg bureau bu ne dugg ministre bu ne ban xaw leen jëppi mais moom day defal boppam ba mat mu soog a jàpp bésam ak Pastef googu lan nga ci mën a wax pour nit ñi roy lu kuy def dara danga war a pare pour def waaw loolu da koo koo da koo nam eh, ndax waay waajuró yu baax yi loolu la doon def turandoo mi si Ibra Moustapha bi mu amee yéene taxawal jumaay Touba eh, booba amoon na maanaam possibilité wu maanaam def comme ni nga wax waaye dafa njëkk ci maanaam kartoog boppam bay ay tool euh, sos ay taalibeem ñu ànd liggéey loolu nga xam mooy mooy liggéey Sëñ Tuubaa bi